di amaat mbégte ak kontaan rek euh, di leen dalal si seen euh, chaîne YouTube euh, Jolof Sport et Santé te rek ñuy waxtaanee li nga xamante ni moo xew si semaine bi ñu génn muy ensemble général bu fédération sénégalaise de football bi nga xamante ni ki ñu fa tabbu nekkul kenn ku dul Augustin Senghor moom mi nga xamante ni am na ñoo xamante ni dañ doon contesté li nga xamante ni mooy quatrième mandat moom nag moo ko maadi moo maadi la woon gagné na maar yi si loolee sax euh, ñu invité ki nga xamante ni mooy sëñ bi waaw présentation. Euh, monsieur Gabi Diaw. waaw bon en fait euh, fan yi passé il y avait trop de remous quoi il y wax ji bare woon na parce que président Augustin moom moo jëkkoon wax ni du du renouveler sa candidature donc day joxe donc qu'est-ce qui est à l'origine ba mu dellu si Donc là, moi, je donne ma langue au chat parce que, bon, c'est le football sénégalais que, soit Augustin ou le ku qui est c'est le football ki gagne. Mais aussi, il y des, il des dessous, quoi. Nous, en fait, ñun sénégalais affaire bi defu ñu xaw jaaxal quoi. gis bu ñu ci am rek mooy euh, comme ni ko ñëpp gisee euh, quatre quatre quatre mandats déjà c'est trop par rapport à la de la fédération sénégalaise de football. ñun dañoo gis ne lool dafa ëpp quoi déjà comme def na ñett trois mandats de quatre ans je crois su ma juumul def na cinq coupe d'Afrique des nations ba léegi Sénégal gañewul coupe et je crois que à mon avis mënoon na bàyyi rek peut-être Madi Touré wala moom keneen koo xamante ne parce que Sénégal nekkul Augustin Senghor kese nekkul Madi Touré kese également am na ñu bare bëri ñoo xamante ne seen xam-xam màcc nañ si wàllu football. pourquoi pas mu kenn mu am ko ko succédé ba pare continuer liggéey bi parce que affaire bi continuité la quoi nekkul question de succession affaire yooyu continuité la. coupe bi moom vraiment war na gaaw a ñëw nag. waaw parce que yàgg na trop ñu koy xaar depuis jamono yi dem sa yàlla sa ba léegi bokkaane ñuy raam ba léegi war nañ def effort nag ñu indi ko nag parce que. jot na quoi. bon ñoom daal nañu déggoo. waaw nañu déggoo doon benn parce que ñii di xëcc ñii di suul. ñii di gas ñii di suul du tax ku bi gaaw a ñëw fii nañ doon benn suudewu doon benn comprendre ku nekk yéene sa bopp jàmm ndax ku bi ñëw. war woon posé candidature parce que amoon na ki nga xamante ni moom la Sénégal yëpp amoon yaakaar muy Madi Touré moom mooy ah, dogalam xëy na lii la ci yàlla namoon comme moom gañi na ko ba toogaat yàlla na yàlla may ndam ba Coupe d'Afrique bi mu ñëw Sénégal. gëm nga ni dina yaakaar naa ko. waaw parce que yaakaar rek la ñu am. moi j'ai comme l'impression que c'est le Il y a des lobbies derrière. Il tout à fait derrière des lobbies. Qu'est-ce qui a fait revenir Augustin Senghor bi nga xam ne bii non seulement il occupe une place à la CAF il occupe aussi am na yeneen prérogative euh, donc aussi il devait laisser la place aux autres parce que les CRSEC là mais c'est des expérimentés ay ñoom CRSEC ay ñoom Madi Touré gars yi fii fii ñoom ab Ablaye Sow laay Sow xam nañ ko Ablaye Sow peut-être bon moom mën nañ ko ba parce que il a d'autres charges yoo xam ni mënu ko boole ak euh, football bi mais ñooñu c'est des il devait laisser la place quoi qu'il advienne. xam nga El Hadj Diouf Sénégal la ko ñor bu demee ba wax loolu retourné waat waxaat xëy na am na lu mu ci gis moo tax mu waxaat loolu waaw nag yàlla baax na daal. pour yow yaakaar naa ko. parce que ñun yaakaar rek la ñu la tax mu wax loolu ba delluwaat xëy na am na lu mu ci gis yàlla ñu yàlla defal jàmm rek ba coupe bi ñëw incha allah. waa xam nga ñun. Euh, on n'a pas besoin que fédération bi di ñu defal un bilan ñun rek ñun xam nañu le bilan du football sénégalais donc euh, on n'a pas besoin de de bilan euh, bon li ma mën a xam aussi li ma xam aussi dinaa ko wax. Parce que ñoom ils ont fait des efforts, euh, ba Tahou, le football féminin. Ils ont fait aussi des efforts, Tahou, le football beach soccer. Mais le, le problème fondamental, si le football local qui est laissé en rade. Alors ce football local, dans tous les pays, dans, en Angleterre, partout dans le monde, si le football local qui prime. C'est le football local ngay est Bon, nous, nous avons un slogan, nous avons manco pour dem Mais mais ki gañ yàlla rek a kay xam tu ne peux xëy rek ñëw ni da ngay dem gagné loolu da nga yeb ñeneen ñi ñu sax quoi mais nag espérons que ñoom seen mandat bi nañu fexe ba indi Coupe d'Afrique. xam nga tamit football Sénégal dafa foo xamante ne ñun li ñu soxla rek lépp la quoi euh, ñi ñu ñi ñu fi ëpp ay individualistes bëriwuñu xam nga xam bi am na fii loo soxla si yeneen réew yi mu ngi Sénégal et donc. Euh, ñun daal gagné lañ bëgg koo gagné. waaw loo xamante ni day trahir football si xam nga El am na loo xamante ni ñun tamit mënuñ ko koo wax ñun dañ ko ba léegi Sénégal dañ koy dañ koy delloo njukkal parce que am na fu ñu yóbbu. kon tey jii nii suñu ñëwee am position bii nii xëy na dañ ko mën a waxaat rek xam nga ña nga Sénégal football Sénégal dafay compter si yow rek waaw mais. am na loo xam ne ñun mënuñ ko wax El Hadj Diouf également vraiment parce que tamit am na fu mu yóbbu Sénégal. <laughs> waaw nit ñi ñu ngi wax loolu mais El tamit xam nga tamit moom nekkul ñoo xamante ne ku mel ni man affaire yooyu <laughs> moom daal xam-xam daal soxla nañ ko ci gàttal waaw.